nuyu naa leen nuyu naa leen di leen wax ne rek boo leen gisee li nga xam ne mooy accoutrement bi xam ne 8 mars oblige muy journée internationale des droits de la femme muy bés bu am solo euh, tey nag dañ cee seet si jigéen ju am solo koo xam ne ku am jaar-jaar la jaar-jaar yu méttee métti métti mais teewul mi ngi forger mi ngi continuer di li nga xam ne rek mooy liggéeyam euh, ànd ceeg jom ak fulla waaye nag euh, lépp fépp foo xam ne rek jamono toll na fa mu ànd loolu lay liggéey ba tax na moom la ñuy dem seet seeti muy euh, borom euh, aliment auto euh, muy garage mécanique boo xam ne macha allah ñëpp a ko ràññee ñu dem xool ko daa mel ni mi ngi en action te gis nga nag booy seet si nit da ngay daal di méngoog moom moo tax gis ngeen li nga xam ne rek mooy tënu bi ba ca daal yi amul nu mu diiseewul <laughs> Oh, <laughs> Alima nuyu naa la. fay naa la soxna am naa la magu billaay maa la raw. yaa ngi am jàmm kontaan lool ci recevoir la. Mhm. ak tenue bi man bu ma gisee jigéen ju am tenue ju leen sol tenue daf may neex. Mhm. parce man comme li may sol tenue à chaque fois gis nga du ma set damay tilim. Mhm. kon da nga waroon man ku tilim ku gën mooy gën a neex. moo lay gën a neex ah gis nga ak loxo yi gis yëpp jom bi moo koy indi. 8 mhm. mars ñu ñëw seet si la. Mhm. ndax man bu ñu nee femme battante wax ci li nga xam ne rek. mooy jigéen joo xam ne jàmbaar la maanaam jàmbaaru jigéen. ñi ñuy sàggal ak jigéenu xeexkat yi comme li waral 8 mars. sama xal day nekk ci yow. ma bàyyi la rek euh, nga wax ñu euh, ci li nga xam ne mooy euh, bés bi. ginnaaw bi nga nuyoo ba pare. waaw di nuyu ñëpp rek di sargal ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax déwénati leen 8 euh, mars bu ñëwee xel yëpp day dem ci jigéen ñi waaye tamit am na góor ñoo xam ne dañ ne chaque jour 8 mars parce que dañ ne jigéen ñi ñoom ñoo ne góor ak këram dañ ne bu woon ak jigéen dina am lu bari loo xamante ne du complet ndax boo xoolee góor bu ñëwee defar këram ba mu baax décor ba salon ba ñu jigéen la góor bu joxee dépense dépense ba naam dana doy waaye jigéen ñi dana ci dolli ndax mu gën a saf dinañ la jox nga yére boo sol waaye tamit da nga ci dolli ti nga ndi sa taar gën a feeñ kon nag ñuy jaajëfal jigéen ñëpp di wax maa ngi jaajëfal jigéen ñi ah di leen sargal di leen wax déwénati leen mm-hmm. waaw soñaat kontaan naa lool ci laaj bi ma laaj ndax mécanicien la te it nit ñëpp léegi soppi nañ tur bi sax waxatuñu garage Alima Auto garage maire bi rek ngay dégg léegi bi ngay dégg muy bu am jom macha <laughs> allah ah, ah, ah. di boo xam ne li mu surmonté ci ay difficulté mhm. euh, kenn mënu loo ko wax dëgg nga yow kër boo xam ne dafa feebar voilà nga jàpp wallaay ñëpp ne déedéet nga jàpp. dëgg la euh, yëf yi métti nga jàpp. Mhm. pendant combien d' années. Mhm. Euh, fi mu ne yaa ngi ci combien d' années de mariage. maa ngi ci vingt quatre vingt quatre ans. vingt quatre ans de mariage euh, ak jëkkër joo xam ne peut être yàlla teg na ko feebar boo xam ne yaa ngi ciy waslu ak fu mu toll lu mu metti métti métti métti métti. Mhm. bu ñëpp ne bàyyi li nga ne damay jàpp. dëgg la parce que nag ni nga wax léegi huit mars bu ñu ko waxee góor ñi ñu ngi ci biir. ndax nag góor ñi sax gis nga ne ñu naan chaque jour jigéen ñi dañ leen war a sargal maanaam chaque jour dafa war a nekk 8 mars. dëgg la ci yooyu la ñuy ñëwee. Mhm. Euh, nan nga ñuy waxee ci yi nga dund difficulté yi nga dund yëpp nga daal di surmonter ba léegi jeexul. Mhm. mais ba tey yaa ngi ci. maa ngi ci euh, muy wane jàmbaaru jigéen. Euh, dafa di fi nga tàmbalee rek mooy jigéen da nga war a am fulla mhm. am fayda. jigéen da nga war a copier ci li nga xamante ne ñoom ñooy say famille. jigéen da nga war a copier ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi la jur ndax dañ ne jigéen tey euh, suñ la yeb muur ngay sëy liñ lay njëkk a wax mooy muñal ndaxte sëy neexul xam nga loolu lañ lay wax mais soo am na ci ñoo xamante ne sëy neexul moom dañ koy bañ waaye tamit sëy bu neexee rek yàlla da koy wékki ci njaboot ga te it euh, man ay difficulté du ma ko nëbb te duma ko liyaale parce que gis nga jom dafay wër Sénégal ba ñëpp xam ne yow mii borom jom nga man euh, dama nekk koo xamante ne ma juddu ci kër ci famille boo xamante ni ñëpp am jom macha allah. parce que ma ciy sargal bu baax samay sama euh, samay bàjjen ak sama ay yaay yoo xamante ne ñii ñu ngi ci milieu santé bi ñii ñu ngi ci milieu couture couture bi ñi ngi ci milieu coiffure bi ñi ci yenn domaine yëpp ñu ngi ci. ba ci tamit di sargal sama kii bàjjen yoo xamante ni ñii à l'extérieur xam naa bàjjen boo xam ne mi ngi extérieur jóg daw di daanu rek moom mooy mooy lii daw. ak ak jàmbaar moom mm. mooy mooy liyam moom mooy taxawaayam ba tax na ñooñu boo nampee ci ñoom rek faaw jom ji yokk mm. euh, difficulté difficulté yi difficulté yi euh, méttiwul naam parce que borom kër gi nag bëgg na ma ma bëgg ko mu nekk sama xarit lool bapp la jéer yi maa ngi lay nuyu di la ñaanal gudd fan ak wér sàmm yàlla sàmm la sàmm njaboot gi li nga def ci njëriñ njaboot gi ak ci man yàlla bu la ko kenn nettali yàlla na lépp nekk ci sa kanam mu tàggat ma nag tamit tàggat bi nag boo ko déggee mooy fekk na ma ci milieu mécanique bi. moom mécanicien la waaw sama jëkkër mécanicien la. ma la nga fàttali ñu tuuti hmm. waaw moom ah. mécanicien la yow nga nekk mécanicien la ngeen di sëy. waaw mu doon koo xam ne handicapé la. Hmm. ma bàyyi la rek nga nga nga. waaw moom moom avant loolu di am sax moom tamit ñun ñoo bokkoon bokkoon nañu sax nekk nekk waay service. Hmm. Ah, bi ñu fa nekkee ñun ñaar kenn mësul dégg ne ñun ñaar ku ci nekk da nga nekkoon nit koo xamante ne da nga xaw a tàng nag. parce que ñu bu koy nettali nit ñi bu ñu ko seetaanee télé dinañ ne la lu wóor la lu am la parce que bokk nañu fan musu ñu ñaar musu yàmp affaire musu seq nuyoo mais bis bi ñu ñëwee ne Alima ma quitté foofu dem beneen service ñu ñëw ne Alima Aziz moo koy jël soxna de dañ ne Alima dañ koy takk le set Aziz day takk le set jabar ah ñu ne waaw léegi nan lañ koy doxalee ñu ne ah nañ ñu mujj ca réception ba gis nga ñi dem ca jàkk ja ba ñu déggee ne Aziz mooy denc Alima ñëpp dañ daal daal di reetaan xam boo temps yi téléphone fixe moo am ku nekk ne sa borom lan mariage boobu mooy mariage yi ba tey ñun ne non non non boo fekkul loolu am mais loolu lii amputation boobu yàggul sax ak loolu mais mu nekk tamit euh, comme lii ma dégg ñu ne euh, journée bi jun ñu ne la toll noonu parce que ñun tamit dañuy wax ne fi ñu bokk mooy BIT bi ñu bokk def formation ak PJA bi ñu bokk def formation dañuy wax ne toujours ñi nga xamante ne mooy personne handicapé yi ak ñi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne dañoo tëx ak ñi nga xamante ne dañoo kii ñëpp ñu ngi ci biir garage bi ba tax na moom jiitu na ci moom danaan kenn du ma yoral sama kër yor sama këru bopp man ak sama sama soxna fi mu nekk nii nekku fi n'empêche nekku fi mais man maa fi ne man mi fi nekk tamit tere communication mi ngi jàll boo déggee noonu loolu mooy sàkku jom ju baax sàkku doom ju baax sàkku ngërëm parce que doom ju baax ñu ngi koy amee ci tànk borom kër munoo ne da ngay def lu baax ci biti te nooteel sa borom kër ba nga am lu baax parce que njaboot am lu baax. ay moments yu difficile. Mm-hmm. loo xam ne dab na ko. Mm-hmm. Euh, ma la ci tuuti rek. waaw euh, nga ñëw ci journée beeg thème bi. waaw moments yu difficile yoo xamante ne dab na ko kay mooy weesuwul mooy euh, nee nañu nit ku feebar rek gàllankoor la nit ku feebar rek gàllankoor la gàllankoor nag boo ko déggee mooy nit koo xamante ne da nga feebar yor njaboot tamit nga yor sa borom kër yor sa kii sa say kii sa soxna bon. mu bu lay soutenir bon du feeñ fenn daal hmm. feeñu fenn parce que dañ ne handicapé du ci du ci cër de hmm. handicapé ci bopp la am na ci ñoo xam ne ñi ngi andi nekkuñu handicap mais ñi handicapé sax leen tane ñi ngi ci kër puusuñu paasuñu waaye moom wax dëgg yàlla gàcce nga laa ma moom ñëpp Sénégal gi yëpp ko ràññee xam ni liggéeykat la et puis jàmbaar la ndax tàggat na ma ci loolu jom ji ak fulla gi ak fit gi ak fayda bi fekk na ko ci man mais moo ci gën a jot moo moccani na sama formation ci loolu ba tax na man dama naan dama koy gërëm di ko sant rek ak di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njaboot gi léegi moom loolu lay changé. léegi lii lay changé tool bi lay dagg moom lay changé. boo xoolee yenn liggéey day métti trop trop métti na ci ku yàlla ci may doole métti na ci ku yàlla may doole. jaar-jaar bi tamit mooy comme ni ma demee ba nekk xale def def mécanique ba ñoo am borom kër ba tamit am macha allah njaboot te njaboot gi macha allah màgg na ndek ndek nee nañu borom kër la nga daan jooy boo ko jooyootul ndax njaboot gi màgg nañ da ngay sant yàlla. te sant yàlla weesuwul yàlla may la ay 8 mars nga di ko fekkee at yu bëri da ngay sant rek waaw te xam ne. Euh, ñaar loxo mooy takk tubay ak ñaar loxo mooy takk sër. te fi mu ne nii nekk ne ñeenti loxo la ñu gis mi ngi jàpp ne lu neex la. Ah. ngeen bokk métier mm-hmm. euh, la ciy jàppale nga ko ciy jàppale. Mm-hmm. naam tawat na ma nga kër ga. Mm-hmm. waaye xalaatam ak xelam yëpp mi ngi ci. mi ngi ci man waaw ma bàyyi la nga wax ñu ci li nga xam ne rek mooy thème ren ji. muy euh, pour un monde digital inclusif muy tamit ci li nga xam ne rek mooy nouveau technologie yi. waaw ak euh, seen liggéey. suñu liggéey naka naka ngeen ci ngeen ci. waaw nouveau technologie yi na moom toujours dama ciy wax dama naan euh, jigéen dama naan euh, liggéey bi dafa changé parce que su ma koy wax nit ñi di ma reetaan man sama mécanique jamonoy ñaari fil laa tombé jamono ñaari fil boo ko déggee mooy fil de masse arrivé courant ak it euh, carburateur kenn ko fenn del ko vis platiné kenn gisatu ndax suñu patron yi dañu daan jox ñuy vis platiné bu am gorge ko doon jox ñu di ko xoos kon nga war xamante ne ñun ay ba sa loxoy tàng kon war a xamante ne ñun ay ancien kii ancien mécanicien lañ ci jamono boobu lañ tollee jamono ji dox ñuy gën a jàng jamono di dox ñuy gën a jàng ba ñëw ci nouvelle technologie nouvelle technologie nag ku ne xam na ni oto yëpp lépp boo xoolee lépp électronique la boo ko jàngul boo ko comprendre doo ko xam boo yorul jumtukaay doo ko liggéey ba tax na nouvelle technologie bi daal euh, nekk na loo xamante ne du ci ku jot làmb te it moomul làmbatu dafa moom loo xamante ne da nga koy jàng ba xam ko jàng ko ba mën ko soog ko liggéey ndax soña bu ñu naxante mécanicien yi mécanique ci bopp la mécanique du tenue bi ñuy sol mécanique du damay am tuuti notion rek def sama formation rek daal di ñëw ubbi sama garage bopp indi ay nit te doo xam fusible bi fu muy dugg doo xam batterie bi fu muy monter ku ne la kaleel oto doo ko kale ku ne la am na si jigéen mécanicien yoo xamante ne koo ci ne kaay mu démontel ma cardan bi mu ne yooyu yaa yooyu man nag télé laay waxee man fii apprenti client yi apprenti bu fi nekk man maay demal sama boobu dañ naan ma alima lii jigéen du ko def da ngay wàññi lu bari man leen ah wàññi lu bari kat lii sama liggéey la maa ngi moom ba retraite moo taxit dañ naan nit ki jàng tari la loo jàngul doo ko tari jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen ngi liggéey bu baax <coughs> am naa boo xam ne bii da ngay bës taxi bi mais bii bu nga gën a pratique da ngay bës da nga léegi lan mooy defoo ñoo bës ñoo bës ñu ngi leen bàyyi soo koy tuyee bu koy toog a taal fan bi rek ñu dugg ñu ngi moom mais bii laa fay mooy cek bi wax jigéen ñi. ci mm. bi. Mm. li nga xam ne rek euh, mooy genre mm. Euh, nga ciy wax jigéen ñi. may wax jigéen ñi tamit bu ñu xeeb bu ñu xeeb dara. te xam ni ñaar comme ni ma ko waxee ñaar loxo mooy takk tubéy mooy takk sër te ni ma ko baaxoo di wax dama leen di wax ne leen toujours euh, liggéey bépp liggéey la. yaa ngi nii journaliste liggéey la caméraman bi liggéey la ñu ne den waay mécanique liggéey la fobeere liggéey la jaay beñe jaay café lépp liggéey la bu ñu xeeb dara. yàcc na yasar daal ak may ma gémmiñu may ma may ma chaque jour ñu ne day xeeñ lu bon jigéen war nga mën a tàggat sa bopp war nga mën a am fulla war nga mën a am fayda nekk bañkat ba nga xamante ne tey yow foo lambee sa poche boo ci fekkee fukki dërëm wala ñaar fukki dërëm jariñu waaw loolu la nouvelle technologie bi nag boo ko déggee mooy euh, tamit am na nee nañu yu bees yu am TikTok baa ngi fii ñu ne YouTube baa ngi fii internet a ngi fi mais pour gën a fesal sunu liggéey naam nañ ko def pour fesal liggéey fësal liggéey bi nag mooy la ngay fësal na doon ni soo naa bu doxee ba ñëw fekk ba ñoo fekk si sa garage bi na doon lu am lu mu doon tricher ak tamit euh, am na benn jaay kat bu may dégg chaque jour mu naan man damay jaay man damay jaay di ko wax di ko yeneen moroomu jigéenam yi waaye dama naan jigéen goo xamante ne ubbi nga sa garage bu ñu naxante ñu liggéey waaw ñu jël sa jël ay apprenti nga ñëw ñuy liggéey nga sol sa yére bu set di encaissé taxu ñoo wax booy nekkee dirigent day fekk nga la ngay diriger nga xam ko ku sëgg di liggéey nga xam ci lii mooy sëgg yow yaa koy expliquer mais pas mu lay expliquer apprenti bu ñëw naan la yow patron nii lañ war a def nañ ci yàlla musal. ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di mën a dëgg laa mën a dëgg laa waaw bu ñu nee 8 mars ñëpp di njëkkante di ñëw ci man dafa di loo xamante ne lu nit ñi gis la parce que man ku ne xam na ne Alima boo ko gisee ci mbedd mi man kenn mësuma gis ma sol tenue bu set rarement xanaa événement am wala dara wala nit taseeg ma ci oto ma kii mais man li tax mu gën a fees mooy man dañ may fekk ci mbedd mi may liggéey oto bu paan client woo ma ma sëgg ci mbedd mi liggéey man dañ may fekk ci milieu sécurité routière mooy dépannage gratuit màggalu Touba gàmmu Tiwaawan yëpp man nit ñi dañ may fekk ci tali tali bi may liggéey guddi bëccëg 23h minuit 2h du la ñu woo bañ ne ko sama 440 bii 4411 bii dafa wër Sénégal ba nga xamante ne nit ñi bu événement jotee rek seen xel day nekk ci man sécurité routière dama ciy waxtaan ak ñëpp mooy li nga xamante ne mooy oto yu paan yi épave yi ci mbedd mi loo xamante ne mi ngi daw ci tali bi oto yoo xamante ne normalul ak ñoo xamante ne dañu am problème ay pneu ak ñoo xam ne problème organ lépp loo xamante ne sécurité routière daal dama koy oto daal dama koy waxtaanal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy ñoom ñooy nekk ci man waa fii damay xool euh, damay xool dafa am kii bu ñu monté fii mo kii bu ñu monté fii euh, benn mano mën a déclencheur bu ñu ko bootal fii léegi boobu dama koy xool parce que bu muy ñëw dafa doon toq ndox mm-hmm. damay xool nag est-ce que fii la ndox bi di toqee am déet te fii la ndox bi di ndax daawul déclenché kon ce qui veut dire mano bi tamit baaxul mm-hmm. waaw parce que dama ko def direct kiiwul moom ci moom laa nekkoon di contrôler tout gis nga ko nekk ah mais nag suñu liggéey la. <laughs> Eh. mais fii dem boo bëggee desserrer dara noonu ngay sëg. waaw noonu ngay tëddee da koy koy yëkkati tuuti rek. ma la laajee. Hmm. lan moo la gën a métti ci sa vie. Hmm. ak euh, maanaam euh, sa cursus en tant jigéen. Hmm. boo xam ne maanaam xeex nga. ba 8 mars fu ko waxee. xel yi automatiquement day dem ci sargal la yow seet si la. oh li ma gën a métti si sama jaar ba jaar jaar moom day bari. parce que ndaam du ma métti sax mais des fois dama koy xalaat di parce que loo xam ne à chaque fois koy nettali mës naa def nekk kii Sotrac ma stage wàcc ma ne ah xam tey daal damay dem seeti sama nii nag wàcc bi wàccee nii ci P12 bi euh, kii euh, tali kii bi Icotaf bi dama wàcc rek xale yu xaw ma mam wuy dof dof ma daw dugg ci benn kër kër gi ma dëggoon ndekete sama kër maam mu gees mu ne yéen kii dof de ki sama sët la mu ma foo ma ne ko sama kër maam laa jëm mu ma xam naa yuy tilim parce que temps yooyu xale dañ daan yuuxu dof dof dof leneen li ma gën a gën a gën a métti nag ci sama sama liggéey ndax léeg-léeg dañ ne góor ñi dama yàlla jegal am na ci yoo xam ne du ñu des fois dañ lay gis bu la gisee nga nekk ci garage yi liggéey des fois da ngay gis koo xamante ne danaan amul jëkk jëkkër wala des fois ñun suñu tën yi ci milieu bi dañ naan bandi lañu ay wayu lañ dañ wax am na ci nag ñu ko mel mais am na ci ñoo xam ne mel meluñu ko ba tax na dañ yemee ngi léeg nga sëgg di liggéey kenn wax la wax boo xamante ne bilaay day tax da ngay buudee oto bëgg a bàyyi otoom dem ci leneen mais à chaque fois rek boo ñëwee fekk si borom kër gi moom moo lay dalal muy sama jëkkër naan la muñal ñëpp yemuñu gis nga ku la wax dara mën nga ne ko nii mën nga ne ko naata doo ci xulloo doo ci xeex liggéeyal sa fulla ak sa fayda boo paree na la jox li nga lay jox nga pare ci jàpp sa ñaam dekk na ci loo xamante ne phénomène bi defe naa ne du man rek maa koy jànkonteel ñëpp a ngi koy jànkonteel te mu nekk loo xamante ne rafetul aussi tamit lu ñaaw la daal tey tey nañu yàlla may gudd fan ak weer waaw tey daa mel ni foog ma jël outil de lan laay jël ak yii daal laa bëgg nga deseeral ma yëpp nii waaw yëpp nii génneel aca waaw nii ah gis nga yaa ngi koy waddal nag jëlal mi ngi nii jëlal aca ñëwal ci bii ah, waaw yëpp sëgg beeg yëpp waa tegal nii voilà dessert waatam la bii moo ci topp bii bii bii mhm. <laughs> ah mais kenn ngi nii de te da ngaa war a jub xocc oh, jub bi day metti ndigg bi ah, de kay boo defee ne xam nga du génn léegi desal na la fi. des na benn. dinañ mhm. wax ni la ata aw doole ci la. doole la. ah loolu la de. ci biir nag. ok. ngay jàpp nga yëkkati ndànk ndànk voilà sa ñaawaay bravo waay laaj fiche bi moo la dese moo la téye fiche boobu moo la téye ak yëkkati jaajëf waay kii mooy cache culbuteur cache culbuteur bi joint bi dafa dee joint bi dafay dugal huile bi fii biir bougie yi léegi nag boo dindee kii boo dindee boo jëlee joint bi dindi bougie nga nettoyé huile ba mu set après nga utaat sa beneen joint nga nettoyé ba mu set daal di nettoyé surface bi ba mu set nga defar sa col daal di collé tëj soo collé tëj ba pare kii moom mooy euh, kii collecteur admission collecteur admission bi nag boo nettoyé fii ba mu set mooy ci classe bi boo ko nettoyé mu set moom tamit da nga koy collé parce que am na ay joint tamit remplacé joint yi ba pare daal di koy soo ko dëppaatee ba pare nga daal di jël sa yeneen bougie daal di monté daal di jël. dem kii beeg demi mètre der beeg yëpp racole yi tout yooyu daal di monté daal di taal oto bi normal. normal kon lii la paan. waaw loolu mooy kii mooy paanam daal waaw. bu dee yeneen oto yi nag tamit balaa ngay gis paan tamit il faut nga dugal ko machine. dugaloo bii dugal naa ko ci machine. Ah, ba mu jox ma ba mu jox ma lipaan ba pare léegi nag lipaan nag moom lay dabu si waaw loolu parce que fii boo gisee ñu teg ko nii lii dañuy éviter dara wor cee daanu. même gis nga yi ñu teg nii fii c'est pas normal. dara waru fee daan ndax tey boulon bii bu suruxee fii te gisuñu ko mën nañoo def suñu liggéey ba pare taal mën na yàq moteur bi ndax directement ca kii ba la jëm ca piston ba la jëm liggéey bii nii dafa sensible nii ñii liggéey bi di nekk. waaw foofu mooy vase d'eau bi foofu lay nekk liquide bi fii lay nekk mooy nekk fii. huile moteur fii lañ koy soxla huile moteur bi fii ngay sol. huile moteur bi fii fii bii bosam bu nekk ak sa bos fi muy sol kii mooy sol fii ngay solee huile moteur bi fii ngay solee huile moteur bi waaw boo déedéet booy vidé ci suuf ngay dem ci suuf dafa am benn boulon vidange bu nekk ci suuf mais booy sol fii ngay sol soo demee ba di contrôler nag seen niveau huile fii ngay ñëw moom mooy kii bi josa huile jos bi mu ngay def nii comme yow am nga oto nii ngay def saa soo xëyee su ko teel da ngay def nii def sa entretien xool waaw fii mooy mini minimum yaa maximum fii baaxul boo ko gisee sa oto war nga poser question am na fuite wala dara fii normal na te respecter sa kiiwu datu vidange bu ñu la tant de kilomètres nga war a changer sa vidange tant de kilomètres bi ngay changer vidange li may tàggoo mooy kontaan ci bis bi rek kontaan ci yow ak euh, ñëw bi nga ma taamu ci 8 mars bi di la jaajëfal di jaajëfal caméraman bi leen wax seen télé bi 7TV mu dem ba nekk ay tele télé yàlla defu mu doon xéwal bu bari ci yéen ñi fay liggéeyee ñëpp ci barke Mouhamed sallallahu alayhi